أيولا تي في منار العلوم ومنبع الفهوم إلى جميع أنحاء العالم

baay magal leen ko yaa sayxi baay magal leen ko yaa sayxi baay magal leen ko yaa sayxi baay magal leen ko yàlla sayyidina muhammadin fatima umul qawl qatima sabaqana siraq bi aqlabina siratika mustaqim wala amiin jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Cheikh Abdoulaye Wilane jërëjëfee Cheikh Abdoulaye Wilane kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Wilane ñu ngi leen di nuyu si turu sëñ Talla ak xalifa sëriñ Awal Baye di wax ne euh, ki mooy Awal Baye bawal bàyyi ñun ñëpp a xam ne abuhu saalihun bàyyam ku baax la waaye mooy itam ku baax la mokkal na alquran jàng na fii su document ba mokk alquran te ko ñëpp déglu ko yaakaar naa mokk alquran du caaxaan jàng na fii mahat ba pare demaat Égypte jàng kon deug deug yoon wu bayam awon awna fa moko na alquran jàng am kam kam dem na bitim rew kana def na kan lu bàyyam bayam bu ko na dem bitim rew way demut way mom yalla dim na ba dem Égypte di jang ba léegi si jàngale nek kon ki moy awul bayam moy khalifa serigne bi legi nak awul bayam lu ñu laa fii itam mooy wilanen mooy sa deug papa ñep ay wilaan lañu sante yaakaar awul baay wilan wilanen kon fi ñoy say mbokk ñii fi nak moy dekk bo xamni depp 85 la fi ñew serigne bi boole lu serigne bi soxla waaw kii mooy sëñ Ibu Alaaji bu baax sa wëlëre bay lool ku baax si daal jëla kuy dimbali sëñ bi si côté bu ne waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf baax jërëjëf kii mooy alaaji Ibu Ba xam xam naa xam nga ko waaye ku baax la ku doon dimbale sa baay ci daara ji si façon dimbal bu neex nag jataay bi toujours moo ko doon ubbee sa xaalis bu bari kon ñu ngi lay xamante fii moy Wilane dëkk bu ne sëriñ bi dafa amoon nizaam dafay wax ne mbir lu mu réy réy su amul nisaam dafay yàq lu gën a mën a yàq mooy la am loo xam duñ ko topp kon dëkk bi ku fi sëriñ bi jiital mooy alaaji alaaji faatu wilaan mooy aji faatu wilaan moom la fi sëriñ bi jiital kon soo soxlaa wilaaneen soo waaye aji faatu wilaan da nga jot yëpp kon kooku moo fi moom la fi sëriñ bi jiital kon man loolaa am si lu may wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi am mbégte bu baax tey ci dalal bii nga xam ne dalal nañ ko sunu sëriñ di Cheikh Baye Ewal ah di am yaakaar bu baaxit nag eh, ne suuf bu mu wàcc rek suuf bu barke la am na ñoo xam ne duñu wàcc si suuf bu barkewul kon kii gan la goo xam ne suuf bu mu wàcc rek suuf bu barke la te yenentu moo ñu waxoon ne isa xalla day fa xalla bi risqihi wa isartaxala irtaxala bi maxfirati zunubihim xadis boobu yal nañu ànd ak moom ila abadil abadi Cheikh Baye wal ñu ngi lay ndokkeel bu baax ñu ngi koy topp bu baax jébbal nañ la suñu bopp ci zahir ak ci baatin xisiyan wa maanawiyan ak foo mën a ne rek boo ñu soxlaa rek say a ngi niñ nekkee woon sa jaamu pàppa noonu lañ futteekuwaat nekk sa jaam lépp loo bëgg rek wax ñu ko rek incha allahu taala danañ ci def li nga xam ne moom lañ ci fas yéene mébét suñ mébét moom yaakaar naa ne ci Baye Niass ak ci Baye Ewal mi amul àpp waaye ñu ngi gërëm suñu mag alaaji wilaan bii nga xam ne lu lu luy njaag rek moom mooy njaag ndax lépp moom la barki démb biñ dajee fii rek ñaaxaat nañu ci sàqam sëriñ bi naka lañ ko war a doxalewaatoo ci diggante bi ba alhamdulilahi rabbil alamin gis nañ liy dox ci diggante bi mudik ke Baye Ali di sunu mag Mor welan di sunu mag ak sunu papa yi nga xamne sa bu serigne bi togan fi rek ñooy ñom gis sama papa bi legi bi ñam ya tok ko tayifut ko bi bàyyiwul toge dafa joy ma xamne mag la ko lo du jaxal mu fàttaliku lu yàgg ah alhamdullilah rabbil alamin bëgg nañ nga ñaanal ñu suñu mag ñi yalla baxee ñu len ndax kat moom moo ne kabirul ixwati bi man si silatil abbi fil usra te sunu mag yi taxawaay boobu lañ taxaw ci ñun ñun nag bëgguñee doon lu du taalibe taalibe rek lañ bëgg doon bëgg ñuy doon sëriñ bëgg ñuy doon dara nañ doon taalibe rek Cheikh Abdoulaye Wilane laa dégg mu ne nga nekk taalibe moo gën a xoyof nga nekk sëriñ ndax mu ngi mel ni sëfoor bi ak client bi liñ aaye sëfoor bi boo demee ay moroomi sëfooram ñu ngi ci ginnaaw waaye aaye wuñ ko client bi du nekk sëfoor mukk la Cheikh Abdoulaye Wilane mu ne client bi tere nañ sëfoor bi lekk tere nañ sëfoor bi naan tere nañ sëfoor bi nelaw waaye loolu yëpp aayewuñ ko client bi kon Cheikh Baye wala ñun suñu xol dafa fees tey waaye ñu ngi lay wax ne say taalibe ngi lépp loo demandé rek yaakaar naa ne Oustaz Dione wax na ko léegi quatre vingt ba léegi walla jiitu na lool sax waaye yàgg na lool te loolu duhut ay caaxaan démb rek oustaz El Hadj Wilane ñu ngi ciy waxtaan mu tànn ñetti dëkk sëriñ bi cité leen seen ak taalibe ni mu dëggoo boole xoon na ci wilaaneen gii kon nag nam ko cité xoon mu nekk noona nga xam ne moom la fa yéene ñu nekk taalibeem ñu ngi la koy dagaanaat ci loolu ndax yonentu moo ne àll wala du sirru abihi am amuñ benn jaaxle ne yaay sa mbootam papa sëriñ bi daf ñu doon wax ne doom yàlla dana ko may loo xam ne mën na koy bañ a may papa ja léegi oustaz John wax na ko fi mu nataalal ñu wax ñu nañu garab gi am na ban am na xas am na meen am na meen am na xas te doom am naa yaakaar nag incha allahu taala ci weeru tedd wii nga xam ne moom nga wàcc suñ dëkk nga xam ne bàyyi weer wii bu tëdde woon daf naan tabibi xaribun hal si xaam yi tas moo yuqaabilu nii bi yowmil mu xafal mu safao ñu ngi ñaan yàlla nga dagaana lañ ci weer woowu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu liñu taxa tax moy jóg mooy mi amna at mo yeen dik na fi man ma bind sàq lima serigne bi waxoon moy fo dem suñ bindé lañ tollu ni lañ doon bind da mañ passé baxna suñ ko bindut wax leen ne dana fi dikkati ñoo jox sama essence ak gasoil atam war kuman ndukkumaan am amu fenn fu mo mankilé lañ daan bind ci ciobare yalla nak bañ dé pare yagna waaye ren it amagul benn dëkk buñ dem lu dul ne lañ fa bind moo ëpp foofu lañ fa bindoon daaw ah, bind mu ëpp nag mën ngaa dem ci dëkk ñu bind bërigo daaw ren ñu bind ñu bindu bërigo ak cinquante mën ngay dem ci dëkk ñu bind woon deux tonnes wala trois tonnes ren ñu bindu une tonne dañ manqué le borom bërigo beeg cinquante xëppale na borom tonne bi dafa manqué kon nit ki kenn ku nekk na nga toll lañ lay xoolee eh, eh, juróomi nit duñ ko yemaleeg juróom fukki nit juróom fukki nit duñ ko yemaleeg téeméeri nit waaye kenn ku nekk na def xadrum kenn ku ne na def kàttanam ci liggéey bii liggéey bii dafa bëri njëriñ ñu bëri commencé nañ ko waaye demut moo tax xalifa bi mos nañ ko yóbbu maag caam mu ne eh, Abdou Wilane bu ma ci amoon ñetti nit ku xam ne yaa ngi ay soixante-dix millions taalibe nga ne xamula ñetti nit ñu mel ni kii jooju wax euh, wax ju rëy la nit ñi des nañ koy seetlu waaye su ma xamoon xamula ko soo ko xamoon doo wax su ma xamoon soo amoon ñaari junni doo wax su ma amoon ñaari junni mu ne su ma amoon ñetti nit ñu mel ni Abdou Wilane kon amu ko ndax saq mi ñuy def ñëpp a ngi cee jëriñ du doomi bàyyee sëti bàyyee kii benn économiste moo wax ne saa yu sàq mi demee Médina prix dugub day daanu Kaolack tout waaw yow nga waroon a jënd kilo dugub juróom fukk sàq mi dem ñu jaay la ko ñeen fukk est-ce que bénéfice wu la ci te ki ko wax du taalibe Baye moom e, wàllu économie si mooy liggéeyam parce que Médina bu dugub ji demee ñu bëri dañu sàq seen dugub ji da ko yóbbu ci marché bi da jaay dugub joo sonneewul nag man nga koy jaay ci prix boo yomb su ko defee prix kële doon jaay it prix daanu kon ñëpp jëriñëwoon ci sàq mi mhm. loolu moo ñu yëkkati lañ waroon a wax ci Baye Awal euh, Abdoul Karim seen mën doo wax na ko alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne ñu ngi nuyu waa wilaane ñëpp te di leen ziyaare di leen ndokkeel mu ne ndaxte fii ay yaayam ak ay tantam ay papam ñoo fi nekk mu ne mbokk gee lëj rek mu ne waaye moom wilaaneen benn wilaan rek la mu ne kon nangeen ko baal xaq lu mu ci xamul rek ngeen jéggal ko ko comme ni ko sëñ Talla waxee kuy soog a door moom wala xale bu juddu bees boo ko joxee yàpp day dee meew nga koy jox mu mën a mën a jëriñu kon mu ngay nuyu mbokki dëkk bi yëpp di leen ziyaara te di ndokkeel imaam ci kaddu yi mu fi wax mu ne li mu wax noonu loolu mooy dëgg nit ak martaba bu la yàlla mën a teg lu mu kawe kawe kawe dëgg moo la gën a kawe dëgg moom moo mag te moo njëkk te mooy mujj mu ne kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax ci kaddu yooyu ndax mbir mu ne rek bu dëkk dëgg euh, lalu day yàqu mbir mu ne bu ci dëgg bokkee day am doole mu ne ca njëlbeen ab lislaam ba bi ñaanee ne na ko yàlla may kenn ci ñaari omar yii mooy Omar ibnu Xataab ak Omar ibnu Hisaam bi ko yàlla may Omar ibnu Xataab mu ne keroog la lislaam falooto bi léegi mu njëkk def rek mooy bi mu tuubee ba dugg ci lislaam te gis ne moromam yi buñ tuubaan li ñu daan daj moom kenn defut ko dara mu taxaw ne mbaar du yàlla dafa nanguwut sama tuub ñu ne ko sa baay tax moo la tinu moo ne bu la kenn laal mu jógee ko foofa dem ba këram ne ko yow yee firab yàlla ji yow yaa may tinu soxlawuma sa tinu soxlawuma sa doole moo it mu génn ca nit ñi di ko dóor mu leen di dóor ñuy dóor muy dóor ba yaramam tàng mu ne waaw kay nit ñi dugg ci lislaam ñu leen di mbugal di leen dóor man ma dugg kenn laalul ma ma loolu doon du doon man mu ne ñaaral ba waxtu julli jot ñu ne dañoy julli ñu ne acc ñëw leen ñu julli ñu xumtoo ko ci biir néeg bi mu ne lii pour lan ñu ne ko kanaa ragal xeefari rek ngir ragal ñu songu ñu mu ne kanaa du ñun ñoo nekk ci dëgg ñoom ñu nekk ci fen kanaa duhun na ñun buñ deexee dugg àjjana ñoom buñ deexee dugg safara yontu bi noonu noonu la kay mu ne kon acca kon tey ci jumaa ji la ñuy jullee mu sant bilaal bilaal noddu ñu génn sikar dem ci jumaa ja julli mu ne keroog la lislaam gën a folote te loolu dëgg ak dëggu moo ko waral kon ñu ngay gërëm bu baax Seydi Imaam di gëm gërëm Seydi Oustaz ci waxam yu rafet yi mu doon wax léegi kaddu yi rafet na te tegu na ci xam-xam ñu ngi kontaan bu baax te di dënk waa dëkk bi saq mi nga xam ne moo ñu fi tax a ñëw nga xam ne Cheikh Abdou Barham moo ko sosoon sosut ko ngir dara lu dul ngir jëriñ yàlla yi ak jox teraanga waa kër sëriñam jox teraanga ay surafaaw bëgg lépp luy njëriñ la jëm ci jaamu yàlla yi bëgg lépp luy njëriñ la jëm ci jaamu yàlla yi looloo waral mu sos sàq mi ñu ci xiir waa dëkk bi mu ne xam ne sax yéen a ngi ci kawam ndax ku joxe lim joxoon daaw lim joxe ren ëpp na ko mu ne kooku lam nekk neex na ko kon ñu ngi leen di gërëm bu baax te di leen sant bu baax ci zaahir di wax ne dëkk bi ci zaahir tuuti na. waaye ci baatin lu rëy la. waaye ci baatin lu rëy la. ndax turam àgg na fu nekk. ndax turam àgg na fu nekk. man moom de yaakaar na mu fi doog a ñëw ne. waaye bi mu koy dégg yàgg na de. waaye bi yàgg na de. kon tur bi nekk. ak mbooloo mi takkoon nañ. ak mbooloo mi takkoon nañ. ndax ndax mbooloo fukki nit. yu àndoo takkoo. yu àndoo takkoo. ñoo gën téeméeri nit yu àndoo takkoo. ñoo gën téeméeri nit yu àndoo takkoo wuñ. ndax fukki nit ñooñu mën nañ liggéey loo xam ne téeméeri nit ñale mënuñ ko. mu ne loolu nag suñ koy mën àndoo ak takkoo rek moo ko waral. te loolu gis nañ ko ci mbooloo mi. kon ñu ngi leen di gërëm bu baax. te di leen sant. di ñaan yàlla yàlla wàcce ci teraanga. yàlla yàlla wàcce fi xewal. yal na yàlla wàccee fi naataanga lépp lu dëkk di soxloo te amagut fii yal na yàlla ko fii nu gën a gaawee barke Bañes barke Yonent Yàlla Muhammad barke Cheikh Abdou Baram doomi si Abdou Barham dëgg-dëgg leen lu ne xeeyoon na lu ko tax a ñëw na mooy sàkkambaay mi bu njëkk ñaari wilaane yëpp dañu bind wilaaneen taba mais maam Waly moo mos a ñaan sëriñ bi na dañ ma damaa bëgg nga yegg si Wilane Guèye te sëriñ lépp lu ko nit xool si Baye daf lay fekk si moo taxoon mu ñëwoon fii xanaa dañ ko xool si Baye il faut mu ñëw fii dafa leen seen ba spécialement kon moom itam Baye awal su fekkee ne dafa jël bu ñu sàkkam mi na ko Bayeem doon defee rek noonu la koy defee kon loolu moo waral ñëw gi wax naa ko fee lu ma ko wax fee loolu ko Baye awal fii ñu ay Wilaneen la ñi ñooy say mbokk yaakaar naa ñooy sa kii doole bu baax daaw sëriñ bi dafa doon kontaan pour ñëw si ñaar wilaa neen yi parce que dafay xam ne ñii ñu ay deretam kon dëkk bu baax la lépp lu ñu bindoon ci bàyyi dañ koy def mos ñu tardé benn dugub benn kii di kontaan bu baax bi ñu fi yàlla indee tamit ci dëkk bu sell bu màgg bu barke bii macha allah di gërëm suñu ustaas mi ustaas Mbay Wilane ci kaddu yu rafet yi mu fi wax kaddu yi tegu na ci xam-xam sha allah le oustad jonne wax suñu mbokk lo way murid la nangam ak nangam murid ak tidiane ak qadir ak lan yep ben la l'islam mo nek ci dug bi ki déparé fi ki déparé fi ki déparé fi lislaam lañ jëm ci lislaam lañ jëm kon ku nekk rek yoon nga fa nga dëkk rek fa ngay jaar ci yoon fa nga jàll murit yi ay xariti bi lañ murit yi ay xariti sëriñ bi lañ ñu fonk lañ ñu respecté lañ ñu fonk lañ ñu respecté lañ ñun nawle ci seen liggéey ñun nawle ci seen wax na ci jaata ne ne murit bi mooy xam xaram tabaski yeew ko ci këram serignam ñoo mu jox xeewi ko jox ko ko ne ko xarmaangoog hadiya bango mu ne bu doon ñun nak bu serign bi ne xar la soxla faaw nga dem diisoog soxna si diisoog doom yi ngur nguri serign bi ne na ñun noonu lañ mel waye murid bu ne la bëgg na rek mom mu ngay def mu ne ku daan wax ci ñom lu baax la bo waxaa mu ne duut dama len di xass waye dama wax deug ku na xam ne wax ni moy deug kon ñu ngi leen oustad mbay wi Wilane mi ci kaddu yi tëdd di ndokkeel wa dekk bi ci saxam bay mi wax nañ ne liñ bind ren mo upp liñ bindon daw ndax serign bi ku am fulal ak fayda dekk bi ak lu nekk nekk mbokam laajee duñ joxe. su fekkee ne souvenir bu laajee duñ joxe. bés bu jëlee yoonu laaj. bés yoonu laaj. da leen di teggi da leen di teggi. waaw bés bu fi ñëwee du fi ñëwaat. souvenir du fi ñëwaat. ndax am na dëkk yu bokkoon ci sàq mi. ndax am na dëkk ba mu demee demati. dafa baax dafa baax. parce que lam parce que lam soxloon joxut ko ko. ndax dëkk waaye dëkk bii. wane nañ ne lii leen di sëriñ bi xooyee sawar nañ ci sawar nañ ci ndax lépp ci bàyyi la lépp ci bàyyi la jëm ak njabootam ak njabootam ak ay surafaaw li ñuy joxe nii. li ngay joxe nii. bu jëmoon ci nit simple simple. bu jëmoon ci nit simple it. rek dafay jëriñ. rek dafay jëriñ. yàlla dalay fay ci yool bi. yàlla dalay fay ci yool bi. mu jëmee ci ñoo xamante ay surafaaw lañ. ay jaamukatu yàlla lañ. ak ay joxekatu xam-xam. ak ay jàngkatu xam-xam. mu ne ñii ñoo koy jëfandikoo. mu ne kon lépp lu ci waay def rek. yokkute rek la cee jëlee. sàq mi kenn du ci def di ci arrière. képp ku ci def rek ci kanam nga jëm mu ne ñu ngi yaakaar loolu ñu ngay dégg suñu baay ji li mu wax ci dëkk bi kuraak ak lépp lu ci aju ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla mi nga xam ne moom moom mbiram amul ci benn soxla jaamu yàlla rek la ko fi tegal kuraa bi ak lépp lu ci aju rek yàlla na ko fi yàlla indi yàlla na yàlla màggal dëkk bi ci mboolem façon màggi nii ci barke Baay Ñas barke yonent Yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ibrahim barke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad xam ngeen tàllal mu ñaan mu ne daf ko woo mu ñëw boobu problème yi bëri na sama waxtaan bu ku may dugg ci problème ndax passé nañ ko waaye nag ki def lu baax nag foog ñu wax ko euh, mu ne bay El Hadj Omar Sall woo ko mu ñëw mu ne ko yow foo lu la nax mu ne ko lan la mu ne ko yow nga nekk ci dëgg foog ne yaa nekk ci dëgg ñi ci caaxaan la leen seen caaxaan yi jaral bu la ko sa dëgg gi jaraloon nga gañ a leen mu rek laa commencé. bëggantee nguur gi di def na nit ñee def booba laa leen gañe kon ki nga xam ne moo jàpp ci nit ki parce que bay rajo masalaan yaakaar naa ne nit ñeme ko doon mu wax nga ne du dëgg loolu yaakaaruma génn roba ñeme na ko du roog buur du roog baadoolo du roog sëriñ du roog taale yaakaaruma ko xëy na sa laam nañ ba ñeme koy wax waaye sa roog bi moom ñeme koy wax kooku mu moo nekkoon fii gis nga maam Nooru Diine dañu daan sant liggéey fii tool bu mu bay mhm. maam Nooru Diine ay sant tund yi yëpp ñu góob sunaam si dëkk ko ci sàqam nii te kilifa goo xam ne ndukumaan yëpp ko respecté woon kooku nag mooy bay yi nii des fi dikk naa fi ànd sa baay ci sàq ni ci ballu geer bële lañ toogoon da ko dégg waaye lépp lu mooy def ci dëkk yi da koy def fii kon man sàq sama kàddu la waaye bind nañ ko ba pare kon naa wax ci relation bi yi euh, nu tuddati këriñ wax na ci kii wax na jàngam wax na léppam waaye sëñ Moustapha xaw ma loo gis ci moom ba wax li wax waaye kii nit ku yaru la xale yaru yaru yaru yaru ba jaaxal bi waaw nit la koo xam ne ku ku ku ku juuroo fa dégg ndigal loo ko waxal ci lu baax loola lay def loo ko waxal ci loo bon mu suturaal la wacc la nga dem ci jikko boobu la ne neex ñu neex ñu lool ci jikkoom parce que ba sëñ Adi gaañoo Cheikh Abdou Baraham daf ne ko hey bàyyi bàyyi moo sëñ Adi hey boo meloon neneen koo ni ñuy ñiiju rek waaye sa bay ji nuñu tiraanga boo xam ne mënu laa wacc mukk waaye nag mel nga noo baax waaye kii bu meloon neneen nan la ñuy def waaw kii bu meloon neneen nan la ñuy def Cheikh Abdou Barham lebal na ku nekk bor waaw lebal na bor ku xam ne yëgule na sax lebal na la bor ndax lan mooy lool mooy hitteem moo buurloo sa hitteem hitteem waxuma la mu defal la mais hitteem moo buurloo sa hitteem kon ku nekk la lebal gis nga sàq mii benn économiste dafa moo wax ne bu sàq bi demee mii dina prix dugub day daanu kafri euh, kaolax parce que poids bu mag moo fay dem te fañ ko may ñiñ ko may xaaj ko da ko jaayi bu boobaa nag bu képp doon jëm juróom fukk ñeent fukk lay jël yow mi waroon a jënd kilo juróom fukk nga jënd kilo ñeent fukk est-ce que amuloo ci sàq bi te koo taalibe ña ca bala kon sëriñ bi ku ne ameel na ko bor kon ñi ñi ngay gërëm bàyyi oon ñii bam melee ni nga xam ne doom la joo xam ne nit mën na koo teg fu nekk wane ko waaye bàyyi oon eh, dëkk bi man suma ma ci waxee ñu ne da ngaa xaabaabal waaye dama ci xam dara gis nga kii nii tolloon sama mag la boo xam ne ñoo bokk ndey te noonu nga xamal ne bi ne naaw bu ko defee ma def dégg nga ñoo bokk ndey ñun ñaar ci doom yi bay El Hadj Omar Salaam yu mag ci la bokk taxawul ci dëkk bi magam bay jàllo ma nga na le dëkk bi yëpp benn benn mbootaay leen dëkk bi yëpp benn famille lañ bay El Omar Salaam la ku fi nekk sant la Salaam ci kilif taane nga nekk wax ci gën a gàtt daal góor la woon boo xam ne wax lu dul noonu gannaawam nga ko wax waaye jëm bët du xool nagu bët du bay laaj ma salaan nga wax loo dul noonu wa rahmatullah yi sëriñ bi nee nañu wax wa rahmatullah mu ne ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm waa dëkk bi ci njiital suñu bàyyi yi toog xam ne suñuy bàyyi lañ ci askan suñuy bàyyi lañ ci at wala sax suñuy maam lañ di leen masawu coono ku ne xam na ne guddi waxtu waroon na leen fekk ci seeni lawraat waaye nag ànd ak Cheikh Abdou Barahama ci liggéeyam bii ci kanamam lépp rafet kon du ko bàyyi mukk ci gannaawam muy ñaaw moo looloo waral seen toogaay bii waaye seen temps mayu leen ko seen yaram tamit mayu leen ko kon ñu leen di jéggalu di leen masawu bu baax di gërëm suñu xalifa bi Cheikh Moustapha nga xam ne suñu baay la. nit ku baax nit ku woyof fekkante nañ Kaffrine mu wax ko kaddu yu ama am solo dénk ko ko ñaa ko ñaanal ko wax dëgg yàlla loolu mënoon na ko ci bañ a fekk waaye nag la garwa bu ne kuy sa baay ñu ne baay Alaaji Omar Salaan ah lu baax rek nga mën a génne ci sa gémmiñ ndax dañuy wax ne mbalka bu setee raakool bi set ndox mu ci génnee rek dafay set aslum dafa baax mu ñëw baax kon baax rek la mën a génnee kon ñu koy ndëkkal bu baax di ko ziyaara di nuyu al ustaas daam al imaam mii wax dëgg yàlla moom it ñëw na Kaffrine fekk fekk ñu fa fàttali ko leer mu am sëriñ bi ñaax ko ko wax dëgg yàlla loolu lu rëy la loolu du lu ndaw xeebul ko mu ne ñoom ñoo waroon toog moom mu fekk si leen toog nii moom moo fa waroon a toog ñoom ñoo waroon toog fii mu toog moom ndax seen doom la seen taalibe la waaye nag li ñuy wax ikraamu dayf wa ikraamun mu looloo waral moom mu toog fii waaye fii seen place la ñoom kon sëriñ bi nee na leen di ziare bu baax di ziare suñu maam Maalaaji ya Omar Salaan nga xam ne xamu ci taarix sëriñ bi toog wax moom Cheikh Abdou Barahama te tuddut ko gërëmut ko ci lu baax ko doon defal ak bi boole. ci jamono bi nga xamee ne soxla na ko lool. léegi rek ci ngoon gi. benn mbokk taalibe mu ngi koy wax naan ne. Baay Alaaji Omar Salaan mos na koo lebal xaalis bu bëri boo xamante ne. jamono ko tënkoon. xaalis bi dama ne ba mënatul koo fay. waaye Baay Alaaji Omar Salaan ne ko ne man de jégal naa la xaalis bi. loolu ndimbal la. loolu lañ ci mën a wax waaye lu bëree bëree bëri deret bi seen taal nettali léegi nga xam ne sonnoon na lool ñaari fan ñetti fan police oo ko mu dagg ay soxlaam yëpp dagg ay yitteem di yëg di jaabante mu ne ko sëriñ Abdou yow xam nga loolu nax da ngaa jàpp ne yow yaa nekk ci dëgg yaa nekk ci dëgg gaa waaye nag da ngaa sori nguur gi doo leen jege loo xewle doo leen xoo jege leen loo xewle xoo leen ñëw gis ñu xam li nga nekk mooy lan boo liggéey ku fa dem ñu xam ne kooku mooy wax waxi naka sa kanam rek ba mu jëfandikoo loolu ci la noppaloo mais loolu tamit ndimbal la te loolu lañ ci mën a wax am na loo xam ne xamuñ ko. diggante moom la ak sëriñ bi seen diggante la jaaroon ñun xamuñ ko waaye li ci moom mooy kum gërëm la kum bëgg la fu mu ko waxee rek da ngay yëg gis mu kontaanee ndax jàppale mu ko doon jàppale ñu ngi kontaan bu ne oustaz loo muy toog ci fi wax macha allah arab yi am na solo. boo wax ji tey gim tey ak rafet gim rafet moo ëpp solo kon ñu ngi nuyu waa dëkk bi yëpp te di leen feddali suñu kóllëre di leen dénkaat suñu bopp fa seeni waajur taxawoon suñu waajur foofu lañ taxaw pour ngeen taxawuñu fa lépp lu ngeen man nekkuñ fa waaye nag lañ man danañ ko def incha allahu danañ def ba ngeen xamante ne ah kii lim mënoon def na ko loolu incha allah ñu ngi seede loolu te lépp luñ nee ñun incha allahu danañ fexe ba ngeen yëg ko ndax loolu kat mooy kóllëre. jaale sëriñ bi feddali kóllëram loolu doon lu ndaw xeebuñ ko benn yoon kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di feddali sàq mi nga xamante ne sëriñ bee ko sos sosal ko njaboot ak baay wi ak i soxnaam ak ay surafaaw man ñoom rek ñoo koy jëfandikoo li kii wax rek amul benn pepp dugub buy des kër ga benn sax mu des kër ga lépp li fi waay dajale fu mu ko dajale fa lañ koy baax buñ demee ba affaire yi jege si ñu jëli ko teg ko ci magasin ba lu tuuru ci suuf dañ koy bu yóbbaale ko Medina Baye dara du fa teg incha allah kon ñu leen ko dénk bu baax a ndax kat bàttale la nit bu génnee àdduna dañuy laaj bu ñuy miraas. ndax ndax bàttale la. ndax battali na ndax léeg-léeg mu am ndax ci waxam mujj lii la mujj wax yóbbu leen ma bind sa xambaay yi lii kaddu yi mujj wax lii la kon moo tax ba mu demee rek ñu ah kon amuñ droit toog sëñ taala mii ne ko jógal ñu ànd dem bu moom dong mën na koo bind ndax def na ko. waaye nag moom sëriñ bi tànkam mooy nuyuwaale mbokk taalibe yi saafante ak ñoom xamante ak ñoom tëjli kóllëre ak ñoom bépp bu ñu jàppandoon sëriñ bi mu fexe lam ci man def ko loolu daal moo waral ñëw bi fii seeti sëriñam seeti ay baayam seet si wëllëree baayam mu lii moo ñu fendi kon asalaamaaleykum wa rahmatullah. وين واي لما في ياك دوير وين لما كنت فاهم وين وين يا عاني يا بابا عاني وين يا وين يا اي برافو